ci ndigalu borom kër gi di la directrice Fat Diop ak euh, l'ensemble du personnel ak malaat yi fi nekk yëpp tey ñuy dalal ki nga xam ni mooy sëñ Mamoune Mbacké di kilifa ci dëkk bi bokk ci njabootu maam borom Touba ñi ngi am kontante tey di ko dalal fii ci biir hôpital bi mu indi fa ay ndogu ndogu yooyu nag duñ na guleet yaakaar naa bu ko yeneen jaam yàlla yi di def fii ci biir dëkk bi mën nañ yàlla ak moom moo tax ndax bu ñu seetee ci ay at daanaka mën nañ ni depuis ba léegi ramadan bu jot bu nekk dafay faral di indi xeeti ndog te nag yemalewu ko ci benn yoon ci weer wi waaye day jël ñeenti weer yi nga xamante ni ñeenti semaines yi nga xamante ni moo am ci biir weer wi di dimanche yi taamu ci bésu dimanche mu ñëw di fi indi ay ndog te ndogu yooyu mu fi indi nag ndogu yu mucc ayib la ndogu yoo xam ni jaam yàlla bu woor ba ngoon jot boo ci tàbbee xam ni am nga lu mat ndog sa loolu nag diine daf ko santaane ñu rafet lu ko lool le fait que mu am yéene boobu ak cawarte googu ak euh, vraiment Pastef bi ànd ak ay dongoom ànd ak ay xaritam ànd ak ay am di jàmmam ànd ak waa quartier bi yëpp mobilisé wu ñëw fii ci biir hôpital bi indi ay ndogu والأرض